ñi nga xam ne nag seen yoon nekku si tey politique te xam ne ay politiciens lañ lu jug ñu politique ko ñu bato seen rakk duggul bato seen i mbokk dugguñu bato ñu amuñu risque bato mais jël situation bu ko politiquer te ñoo ñooñu toll si situation kenn si ñoom ku génnee ay millions jàppale leen amu si kenn ku def sacrifice amu si ndax ñii ñi ngi seen problème beneen problème personnel ñii seen problème politique ñi ñi ngi seen problème seen perso defar seen personnalité kon dama gis ne euh, wax ji sëñ Bass Abdou Khadre wax laa doon eggale la mu waroon a wax ña mu waroon a waxal la waxal fa mu war a waxee la waxee ak ñamu concerné kon ñamu concerné tontu wuñ ko ñamu concerné dégg nañ ndigalu sëriñ bi te danañ ko jëfee ñamu concerné kat danañ góorgóorlu si ndigalu sëriñ bi te xam ne kat delloo na leen si sëñ Touba delluwaat seen xel ña nga xam ne nag concerné wu leen te sëñ message bi ab du seen message seen yoon nekku si du ñu ay murit ah topp ñu si ndigalu tutelu sëriñ bi gëmuñu ndigalu sëñ bi loolu wax ci concerné wu leen te war nañu seen téye seeni làmmiñ te téye si seen bopp te xool ñoom la leen seen diine may wala la leen seen seen seen seen communauté may wala mbooloo ma ñu bokk lam leen may nañ koy firee ñu firee seen i wax noonu te yem si loolu laa waxoon danaa ko si andi si message bi nga xam ne mooy tontu bi nga xam dama koy tontu Guy Marius Sagna dañ xam ne ñun message bi sa partie au murid te ñun murid yi ay taalibi sëñ Tuubaa lañ digalu xalif bi lañuy lañuy dundee lii li alxuraan waxit la ñuy topp li sëriñ bi waxit la ñuy topp